ñi nga xam ni euh, ci département bi lañ leen fekk muy département wu Tivaouane muy département bu am solo may sant yàlla bi ma leen fekkee ngeen toog ak waa coalition bi di Diomaye président ndax xam naa ni xamoon ngeen suñu digganteeg Ousmane Sonko xamoon ngeen dëgër bu mu dëgër waaye lii ngeen def itam joxante loxo fii ci suuf di fi liggéey pour jëmmal li ñu doon ñun seeni leader leader ca kaw loolu yaakaar naa mooy li ñu bëgg a jàngale ci politique ku wax Tiwaawan xam li fi nekk ci ci njëriñ ci ay ressources bu ñu ko doon lim duñu fi jóge waaye li tax fii bokk ci département yi gën a ndóol gën a dellu ginnaaw mooy yorin woo xam ne wii ñaaw na te li fi nekk ci ay meññeent ak lu baax jëluñu ko delloo ko ci askan wi dañu ko jël defale ko feneen féetale ko ñeneen système bi nga xam ni moo fi nekk depuis 1960 indépendance ba tey te réew mi demul fenn bu ñu ko fi jëlee teg fi bu bees bi nga xam ne mooy projet bi ànd ci ak président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ak ay kilifa ay gor ak boroomi xam-xam pour jëmmal Sénégal defar ko incha allah bu ñu jukkee loolu teg ko bu lalu ci xam-xam pour soppil réew mii di Sénégal. département bi waroon na bokk ci yi gën a riche gën a am meññeent ak ak ak ndam ci biir Sénégal waaye bokk na ci ci gën a am jafe-jafe. lu ñu muñ lu ëpp juróom-benn fukki at ak ñeent daanaka ba des na. fukki fan ak ñaar pour nga jël sa carte d'électeur nga dem voter pour changé loolu la metti depuis plus de 60 ans yaakaar naa ni loo tayel tayel wala loo bëri bëri yitte wala loo bari bëri woon soxla war nga bàyyi lépp loo jàppoon nga dem voter pour que lii jeex fi définitivement te mën naa nekk dès le 24 bii ñu jëm ñu voteel projet bi ndax mooy bi gën ci Sénégal li ci nekk ci ay proposition amul benn candidat bu ko yëkkati te ñun nii ñëpp moom la ñu porté incha allah ñu ngi leen di mobiliser di leen ci ñaax xam naa ni takku ngeen gëm ngeen ko waaye na ngeen ci gën a déterminé yéen jeunes yi bu ngeen voté ba pare toog leen fa surveiller vote bi bu ñu compté ngeen compté bu ñu affiché ngeen filmé ngeen photo ngeen yónnee comme ça dara du yàqu dara du yeex te dara du sàcc suñu vote jamono jii ma toog fii di wax ak yéen Ousmane Sonko nekk ci kaso bi ba tey deful waxul tooñul deful dindiwul ñu jaay ko doole persécuté ko tëj ko ci kaso bi injustice mënu ko weesu moo tax fii laay waxee Macky Sall na ko libéré libéré Bassirou Diomaye Faye mu ñëw yeggali campagne électorale bi te waxuma ko dans les meilleurs comme ni ko ko conseil constitutionnel waxee woon dama ko ne question d'heure laa la wax waxuñu la ay jours mu libéré détenus politiques yi ñu ñibbi seen kër su ko defee le 24 balaa midi ñu jëlaat suñu réew transformé ko defar ko Sénégal jëm ca kanam